yi Barthélémy Ngom lañ ci àndal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 ci jóg ndax Macky Sall artu na ña koy def l'observateur jëlaat ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy caqat-caqatee suufu jam ñaaño bi Macky Sall àdduna ci ñoom nee leen nag nañ ko dakkal nu mu gën a gaawee wala dana metti ci ñoom yendoog jàmm am ma amul eh, nga kon maanaam ah, fanu yàlla gi naa bañ ko jëmale officiellement président la république di Macky Sall waaw waaye nag dana jafe looy na de ngir nag maanaam kon nga gis seen lool ak rapport bi nga xam ne nag maanaam moom leen mujjee woon a génne day te na fi moom Keita daal di koy defoon waaw nga xam ne sax looloo taxoon nag ba président Macky Sall ci boppam kon daal di koy dàq en rapport bi day dara nekku ca laa la wax yéen kaa ne lu jëm nag ci wàllum déclaration de patrimoine waaw loi bi ci boppam kon moo xam le neex na ay téeméeri téeméeri catégorie ci ay fonctionnaire day waaw dañu ko seetlu lu tolloog ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ci ay hauts fonctionnaires day yoo xam ne dañoo siisu dañoo lànk ndaari tëdd ca suuf te duñu waxee seen alal nan la toll aa de patrimoine waaye moo ko wax waaye ba 31 décembre 2016 day lu tolloo juróom benn fukk ak ñaar ci ay agent public yoo xam ne neex naka dinañu ko war a def jàppal na juróom ñaar dong day ñoo ko ca def eh way samba daanaka lu tolloo juróom fukk ci ay doomu aadama yu lëf ah, ba ni ñuy adoon yi defuñu ko yéene gi ne waaye am na tamit day ñoo xam ne jabale bee la ñuy liggéey président de la république waaw ak assemblée nationale ak conseil économique ba ci ministère yi ah, violé loi ah, xam le ne lu tolloo ñeen fukk ci ay milliards day xaalis ñun sénégalais waaw lanu sàcc maara day taali la ilaha illallah maa la wax lii ci transfert xaalis bu jaarul yoon xel tey na ci dafa la ci wàllum impôt waaw ak séddal xaalis boo xam ni kon bu salte la di blanchiment de capitaux milliards u lanu sàcc laa la wax waa dossier Petro-Tim day Franck Timis ak Alioune fan la toll le quotidien ne kay ne ñi nga xam ne nag maanaam dañu doon xaar day ngir ñu gindi leen ci dossier Petro-Tim waaw bu yeboo ñu dem toog na gis ca dossier wa day ëpp na ay infraction yu doy waar ay pénalti kese maa la ko wax moom la gis tamit ci division régionale des transports terrestres ak ca centre des services fiscaux bu Ngor ak Grand Dakar ak yeneen ak yeneen sax ca jamono joo xam ne nag maanaam ñu ngi sàcc suñu alal day waaw kër Samba kan gële askan waa nga torox mament def day taali laa la wax sonn lool ubil tribune yéene kaay Moustapha Jité dëkk ca village bi naan Jité waaw jam ñaajoo nga ne fa la ñu fas yéene tàggatee ñëpp de mécanique oto baa nga fa technologie gaa nga fa entrepreneuriat pétrole ak gaz tourisme ak hôtellerie waaye njiitu réew mi président Macky Sall day commencé naa dankaa fu gaa day te suufu jam ñaajoo googee suufu xel kom ba day barke rek la def barke Serigne Touba directeur fa ne ginnaaw ba xel kom 2018 ba jeexee day jëwriñ da wax naa parce que Cheikh gis nga xel komu ren ji ah fa góob ma bëgg mbay di yooyu day ñu dooni jirim ak i baayo waaye Serigne Cheikh Saliou day moo ñu aar indiwaat ñu journaliste bi ne ko waa sa diggante ak président Abdoulaye Wade ak sa diggante ak président Macky Sall yow Amar Cheikh Amar ne Abdoulaye Wade day ah nag sama baayu bopp la kooku sama baay la daan ma jox nag ay commande tracteur ay matériel agricole waaye bu dee président Macky Sall day c'est Amar yamu ta te yéene kaay ga nee na maa ngi gërëm Serigne bu wër ci fédéli gi mu fédéli waat góolu te fam ci man sant ñu dik ak ministre Pape tabarkàlla tabarkàlla te ñi nga xam ne ñooy béykat yi tamit day ñi ngi xaar nag am ngoo gu baax lool aa uh-huh. sekk ndaanaan ne waaw tey politique ba le quotidien ne kaane waa APR day ak waa PDS daal de ñuy addu de Ousmane Sonko kay dañ koo fusillé dal ci kawam yoro ja waaw ne gis nga boy wut bës di wut bës di wut kese lay mujj rey de maa la ko wax Ousmane Sonko moo mee ci Vox nee na vidéo boobee lu yàgga yàgga yàgg la ay weer te pour wan ñi ci te réew mi tojaange yiñ fi def la waaye duñ fi rey kenn Babacar Gaye bu PDS ne lu ëpp daal tuuru trop c'est trop Seydou Gueye ne daal day wane rek jihadisme bu Ousmane Sonko 24 heures yéene kaay ne en tout ba yéeg de diggante Ousmane Sonko ak APR ak waa PDS réew quotidien ne de Ousmane Sonko kay nguuru Macky Sall gi ci boppam kon la jiin lii wàllu manipulation la waaw yéene kaa gi ne waaye moom président Macky Sall day waajaayu màggal Touba gi ak élection présidentielle 2019 waaw Macky Sall de am na liggéey xaw nag nan lay lijjantee Touba Omar Sarr bu PDS ci l'Observateur waaw nee na maniteur Madické Niang day xam na li ci séparation politique ndax jugee na RND jugee BLP yéene ne militant Ousmane Sonko ko ca Kër Massar exploitation mine ba ca Falémé Gaye a waa Turquie day ñoo gagné marché ba bett na ñëpp Dakar Times de yéer Atepa Goudiaby day waaw nee loolee bis bu ko président Macky Sall signé ah wóor la la laa la wax te ñëpp war a jóg waa Sénégal jóg nañ day ci kaw Zik FM ak Sen TV ubbil la quotidien yi ne kaay kër ga Babacar Diagne jiite waaw nee na leen publicité bi ngeen di defaral kon Bougane Gueye ndax ñëpp war a tolloo kon ci rajo bi la di Zik FM ak Sen TV maam sagar ci Source wax ci farata ñun waa Source A de nekkul ne déedéet général yi menacé waa tey kat yi dalaate ne dana teg FM wala Sen TV bu li dakulee ee eh way Samba ñun waa source a day liñ leen di laaj yéen waa général waaw keroog a jombal candidat Macky Sall jëlee RTS ci lancement campagne parrainage ba day waaye yéen foo leen nekkoon keroog ba waa RTS di wane boo jugii di salaatul alal fatiha maki waaw foo leen nekkoon waa Babacar Diagne daggkatu signal bi lée keroog ba Ousmane Sonko kon jëlee ne maanaam kon 2STV def à l'américaine deux de temps ana foo nekkoon waaye Babs ak ñi nga àndal ci Sénéra waaw keroog ba Papa Diop njiital bokk gis-gis fayee ñetti télévision muy wane kon projet de société la ñu xamul dem naa ca football ba source moo tee ñu dem Coupe d'Afrique ba gagné rek dem termine yéene kaay ne waaye Sadio Mané day la blessé du football maa di Italie koo koy ñibbi ne sax Liverpool <laughs> suñ xeetu terrain yi day waxuma la joueur bu blessé de waaye mën na laa xañ sa qualification boo paree mën na la tëjal